oustaz ñu ngi am mbégte ànd ak yow euh, wax nañ ne nanu moytu euh, julli julli julli mbooloo yi euh, defe naa ni foofu noppi ngeen ngir jàppale ci kilifa yi xam nga jàppale goo xam jàppale sa bopp la sax de <laughs> ndax xam nga boo boo boo tawatee doo tal jaamu yàlla ngir ngir rek lépp luy gën a lawal xibaar yi. <laughs> jërëjëf El Hadj Assane ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal waa RFM yëpp. Hmm. macha allah ci ni ngeen di def ci combat bi. jërëjëf. Euh, lii nga xam ne moo xew nii dafa xewoon ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. ndax moom ku nite la Alaaji mhm. te lu mu mas a def lu nite la dëgg la am na ko mas a dal ci saaba yi def na ko toogal sa kër ba wér mhm. am na comme lay saaba yi magum saaba ne ko toogal sa kër ba wér loolu waaw benn mooy confinement dëgg la dëgg la ba ca tege mooy daf naan wax ne bu ngeen xëyee na ngeen raxasu bala ngeen a def dara du dëgg bu kenn kës sooli ci biir na ji ñuy dëgg sa baat incha allah bu kenn ubbi te ubbal sa gémmiñ. Hmm. waaw loolu la doon wax. jamonoy taw daana am mu ne bilaal booy nodd bul wax kaay leen da naan sallu fii rihaalikum na ku ne jullee këram. Hmm. loolu la daan wax. kon bu ñëwee ba jamono ji tey ñu ne hmm. dañuy. taxawal julli jumaa taxawal julli mbooloo loolu daf ci daf ñu ci fekkoon. lislaam waxoon na ko. lislaam waxoon na ko. te jëfe woon na ko. ala des doon soo seetloo li ñu ne lañ tëj frontière yi. loolu waxoon na ci daf ne won mm. ku ci nekk ci barab feebar bu mel nii fekk la fa bul génn. Mm-hmm. bu la fa fekkut bul fa dugg. donc moom yooyu ma wax loolu am na solo lool moo tax mi ngeen def nii jotle ko ci nit ñi tudde ko ko moo tudde ko. Mm-hmm. daan mm-hmm. daan ko daan korona daan corona. ñun ñëpp bu ñu àndee danañ ko mën a daan ba biir bu yax dëgg la euh, yëgoo gi li tax mu am solo bu bu xam nga explication yi nga indi solo gi mooy euh, ñi ñi foogoon ni yéen da nga bu ma yéen mooy dañ naan l'islam gi danoo mm-hmm. danoo danoo xamul li xew dañ leen a di sensibiliser euh, ñu wane ci ak dëgër bopp demeewu ni ndax boobu yow ni nga waxee ni wàll yëpp ils disent la même chose wax ji kay mooy xanaa kon yëgoo ci nit ñi moo ci des. waaw yëgoo ji moo taxoon ñu woote woon ci grande mosquée. Mm-hmm. woowoon ñëpp borom xam-xam yeeg imaam yeeg ulama yi ñëpp ñu woo leen. Mm. indi yu mel nii ba bu ñu fa jógee rek ñun ñëpp ñu koy dem ci kër yi toog te xam ne lii def nii fii lañ ko teg njàngal mi ko teg ki ko jàngale woon te mooy sunu sunu guide. Mm. mooy sunu jàngalekat te Alaaji Asan mm. lépp lu ñu yëkkati ñu naan lislaam nangam ak nangam a darul lislaam rek waaye bu di lislaam moom ñëpp ci bokk ànd ndax moom li mu indi woon leer na nañ. dëgg la. wa maa arsalnaaka illaa mais xam naa da ngay dugg yaa ngi yéeg léegi antenne. <laughs> waaw maa ngi nii ci buntu bi taxaw. doo leen ñaan waa Sud FM ñu synchroniser ak benn yoon rek leen ñu jël RFM <laughs> kon balaa ma la yeewi oustaz. démb ah. wax nañ fi waxi karaw gu nekk ci biir euh, alxuraan euh, nit ñi dem man li ma ci gis sax ci positif mooy ñi ñi daawul laal kaamil yëpp ak ñi ko amuloon seen kër dem nañ jëndi ko faaf. <laughs> waaye waaye la moo lay won aspect aspect aspect ñàkk xam lislaam gi. ci ñenn nag mooy. Mm-hmm. ña song kaamil ba te yoruñ njàpp. voilà voilà ak ña ko song te nekk seeni régal. Mm-hmm. ak ña ko song te yor janaba. est-ce que. te loolu yëpp jëru ko ndax su yonent bi du ñu faj ci ay kawaram. Mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam du ñu faj ci ay kawaram. Mm-hmm. maa a baax sama mbokk ba nekk ko sama xarit boobu. Oustaz Mor Thiam. dégg naa yóbbalu yóbbalu bi mu def tey ci suba ci noonu. yóbbal bi la. dëgg la mm. dara dem ba mu am junni at. mu ne loola ma leen tere woon delluwaat leen. na vraiment mënut a ne. du dëgg. Hmm. nit ñi ñooy dox ci maayiru nit ñi ak seen i jikolosi. Hmm. amul am kaamil bu am kawar amut. naa hmm. ngeen fanweeri kaamil juróom-ñett fii ci kër gi. amu ci benn bu am kawar googu. bu lii dakkul ci bokkaale lañu jëm de ñu ngi ci sax ci yenn fànn yi dèjà. ci lañ jëm ndax jël kawar di ko di ko xooj di naan loolu kay bokkaale mënu ko weesu. kawar du kawar du indi jàmm fii ci dëkk bi. dëgg la dëgg la du fi jëlee corona xam nga lu fi jëlee corona. déglu ministre bi. oui lu ñu ci wax. docteur yi. déglu docteur yi. Mhm. déglu religieux yi. ak ñaan yi boole liñ ci dégg lépp ak ñaan gi. jërëjëf muy fegu ak fajo ñaan. macha allah su ko boolee koor naa jóg bu ñu ko jóg na xooj ay kawar hmm. xooj ay yeel xooj nangam ak bëñ. Mm. loolu du ci du fi jëlee feebar. jërëjëf yaa Oustaz. jërëjëf bi nii ndax maa ngi ba tuuti studio bi waaw mënut a ñàkk liggéey bi benn la ñu ngi lay gërëm ak naataango yëpp ñoom Baye Omar Gueye dama bëggoon dañu <laughs> ñu ngi a ñoom Sud ñu jël daan coronavirus. jërëjëf jërëjëf <laughs> merci très